xam ne la dernière fois ni nga doxalee gars yi dara neexuma si dama bëgg nag bii nga changé bu baax carrément doxalin parce que bientôt bagage yi jóge na Torino war a yegg si Sénégal bëgg naa nag bipa nga changé carrément doxalin. Eh, ferme ta gueule et puis ta grande gueule est que yaa ngi may dégg sama kër boo ci dee duggati dee ma ko wax beneen bi ci des mooy. li jógee Torino di ñëw Sénégal ci sama loxo bii lay jaar daf may fekk ma bale sama terrain est-ce que yaa ngi may dégg bu baax. en tout cas bëgg naa nga xam ne ñu ngi ci koor gi te bagage bi mois bii la war a dugg ci Sénégal pour nga changer doxalin. basta dégage génnal sama kër ndax xam nga boo ñëw sama kër koo fi dajeel bu fi ñëwati est-ce que may dégg. xëy ah ci yaaro شيغان تو نوار لا صلح بين كويخ صباح جنتل صباح جنسكر ها mani ki génn ci kër gi nii kan la ah ki dab de kii ci baba nitu tour doy la wa ci nitu tour doy la waaw léegi nga bal ma janta mën nga diko tikel tuuti ci ñi nga naan nitu mamatur noonu décortiquer eh, nitu tour doy ah lolu bob lolu bob la di da batis da lolu di da batis torop ndax tour doy ji jew ci do jo bari da do bari torop sax affaire bu demee na noonu yéen nit lañ. Ah, ay did rek bàyyi ay did yu bëree sax ba doo di ba la doo compté doo bëri. sama yaay man dafa am ñu bari ñu ñëw fi si kër gi. daa yow fi ji jaw fii léeg-léeg fii laay la damay jékki-jékki ba des ñuy dugg sans autant nga gis leen yéen heure loolu. heure bu dee lañ fii jaw ay 4 heures di matin léeg-léeg ay 5 heures heure bi nga xamante ne sax léeg-léeg bi nga xamante ne boobu la paa bi di eh, wax jóg leen waaj bi jóg leen waaj bi heure bopp lay jaw fi sama yaay man baba waaw baax man maa ngi ko doon woo léegi nii mun naa man mën nga ñëw du si 30 minutes ah bu la du si du si 30 minutes nga ñëw boobu daa saturé rek saturé ah di bi koy woo do boobu dafa saturé laa wax ubbil ma jàll waaw loolu dama di bi koy woo boobu daa saturé woo baax ba ba di ga bàyyi xel ci li ma la wax nag dégg dama di ba baa tur doo ji fii ñëw bari na loolu rek wax bantu tak sa telepon bi waxtaan ak man sa dama bëggoon dem resto quoi resto pour la pour ma jënd la loo lekk afaat ne léegi laa ndogu wala yow yaa xiif bu dee nga xiif bàyyi dem mu wutal la yow si lëndam bi mau ma bàyyi la nga dem ndax yow ñaanal rek boo ñaanee dina mu gunge ba ma yegg ma dem ñëw. Eh, yow bàyyi ma xam nga yow am fit hmm? mais gi ak waa kër gi rek. maa ko waa kër gi duñ ma may dal waaye man tamit du ma leen topp ci liñ nekk. Mm-hmm. donte nag ñu ngi may provoqué su ma toogee ci salle bi seetaan télé ñu ñëw nangu commande bi wala ñu fay télé bi su may fomp wala may bale. ñu may tàmpane di def lu leen neex mais duma leen toog ndax nit boo sekkee moom wax lu mu la bëgg a wax day profité jaaroo ko te wax ñaar ñu koy seeg loolu laa leen dul may te man sax nag man dama leen ñeewu gis ma xam nga laay ne ki ma ëpp diine wala ëpp ma taalibe ma kook laa ñee mais boroom alal du ko ñee ndax ni mu def ba am ko ñëpp mën a def noonu ba am ko foo jëlee wax yi. wala lan laay wax ko. waaw sa maama la yar. te leneen li ci des yow yaa ko sotti yow yaa ko mottali. waaw baax léegi toog xaar ma dem jëndal la réseau benn affaire rek ñëw nga xëddee ko sax au moins. déedéet nañ ànd daa wala toog. ñu ànd. Mm. loo gis. ñu ànd. tànk tànk mbagak mbag balaa xale di la capté ci yoon bi. du bàyyi mu dem lu nekk fi mën a am. yow man yoruma yorluwuma. Ah? dañoo bàyyi loolu xel. Hmm. yoroo yorluwuma waaye yaa ngi jënd ba yàqu. barke yàlla ah, léegi léegi nañ dem dañuy mën a dem daal mënuñu ko ñu toog. kon jeex na jógal mais c'est juste que dafa am lo xamné dama ko gis neexuma te ne yow tamit bu fekke ni wala gis nga ko na ne la jëm ci ñag bi te mën nañ ko mu dugg ci kër gi di sa xarit nek di ci kër sama xarit dafa dëkk sama xarit

et que loolu yaakaar ni war meuna baña nek lo a mom lay def en tant que jigen parce que jigen ci cœur dafa war di bolé ma taxone mané ma wola comme ça nga jéem waxtan ak mom il est pas trop tard de changer mu jéem changer comportement baña top, topp parce que jëkkëram xalé la loolu rek moo taxoon ma ne baal ma wola waxtan ci yow peut-être que tu peux trouver une solution. bon merci frère degg na la mais wax ci dafa cadré bopam mhm. parce que. gis nga limi li yek yek yek yëg boppam niveau bu mu meuna tollu yaayam romb nako ko ah parce que gis nga nit ki li nga nàmp rek ngay taxamtiku hmm. bité lim def rek la sañ bi xeeñ hmm. li nak leçon la bu mu jang ba paré ñew sey si diko réciter rewnem nem gi mu nekké ak yaakaar kum gis mo la gën ndax lan alalam ci yaayam la ko yaayam nii la mel. ok mais moom yaayam lan la liggéey xaalis bi mu yor alal bi fan la ko jëlee moom. yaayam daal moo jaaxal ñëpp moom la Sénégal gépp di waxtaane àdduna ak li ko wër Torino la dem def fa un an un an kese la fa def ñi nga xamante ne tukki nañ pendant six sept ans alal bi mu am moom mi di am un an Torino ñoom amuñu ko mu dem Torino am fa un an mel ni réew mi. di def lu ko neex yor ay milliards. d'accord lolou la nit ñi di wax mais pour Ndeye Yacine sama copine nak mhm. lim mu bëgg rek ci la nekk ak mom ku koy rangati la bëgg man ma koy ràngati jéemuma koo changé parce que mënuma ko ndax li yaayam mel la mel. Mhm. jéemuma waxtaan ak mom ci benn fan lu ci li bëgg man li ma ne moo ngi ma ngi ci mom na nekk ci li mu nekk man loolu la gëm. bon c'est vrai mais alal warul tax nit mel nii parce que euh, alal day jeex mais dégg naa li nga wax mais boo ci mënee dox ay jéego rek dina nekk loo xam ne dina gën parce que ci weeru koor lañ nekk te li mu nekk di def amul àndalul dara yàlla moo tax comme xaritam nga jéem ko xool noo ko orienté. mu jéem a changé rek yaa ngi ko wax n'est-ce pas ci weeru koor lañ ne ñoom xàmmeewuñu décembre xàmmeewuñu weeru koor xàmmeewuñ ci ban moment lañ war a foo ñoom pour ñoom àdduna bi lépp ambiance la àdduna lépp foo la maa ngi xëpp samay bët di leen seetaan toute façon man duñ ma changé fexeel ba yow buñ la changé ñoom nag ñu bàyyi ko ak vie moo xam moo voilà ah, baax na mais xam nga dara bu nit booy ànd ak di gis dara danga ci wara waslo ak eh, lo rek la woon. man ma yooyu man aw ma sax jot xam nga li may bari wul dëgg la mo tax dama lay libérer mais merci beaucoup. ok amul problème je naa sa temps vraiment c'est vraiment gentil hein donc xamna dama lay bàyyi ok. <laughs> allez ciao ok merci beaucoup hein ah.